jërë ngeen jëf euh, mbokki internet yi ginnaaw bu leen nuyoo ñu ngi leen di jaajëfal ñu àndaatal leen ak Cheikh Yérim sekk ginnaaw ba mu waat ay kàddu jëmale ko ci Ousmane Sonko ak Mame moom nag dafa yëkkate ay kàddu di xamle ne rapport amul rapport bi épinglé kii di Mame kàddu yooyee nag la daal di yëkkati ginnaaw loolu tamit moom mii di Cheikh Yérim sekk moo fi toogoon ne rapport am na rapport bi dafa. épinglé ki di mambay Mbaye mo mi mo toga né rapport amul feulé sa Sen TV la ko waxee kàddu yooyee nag la ñuy déglu ko andandok yeen chambar ko bu baaxa baax ci waxi dembam ak waxi tay mambay rapport amna wala amul. rapport amul rapport amul. mais rapport amul. rapport amul. La démission du gouvernement de mambay Mbaye a surpris tout le monde, sauf Yérim poste Votre bloc préféré a eu vent depuis plusieurs semaines du froid qui s'était installé entre le président de la République, Macky Sall, et son désormais ex-ministre du Tourisme, Mambaignan, sous le magistère de Macky Sall. Celui-ci, muni d'un dossier, l'a ouvert, a pris pièce par pièce pour interroger Mambaïnian autour du scandale Prodac. saa baay ay du la ko rey. jaa ngeen jëf mbokk internet yi ginnaaw uh, kàddu yi Cheikh Yérim Seck yooyu nag uh, ñoo ko bokk dégloondoo dégg kàddu yi nga xam ne nii nag uh, moom la yëkkati fële ca Sen TV ak kàddu yi nga xam ne nii moom la yëkkati woon fële ca Yérim Passo kàddu yooyu nag am na waraw bu baax a baax ndax la mu yëkkati fële sa Sen TV ak la mu yëkkati fële ca Yérim Passo am na waraw lool bu baax a baax. ki di Cheikh Yérim Seck nag yemul fofé ndax war na ay cadeau jëmele ko ci digënté Ousmane Sonko ak Mambay Niang ne dañ leen di atté sax ñenn ci sénégalais yi di dé dañ leen a war a àtte kàddu yooyu nag yoon dem deglu jiw. dama lool wax dama lay wax gëna dé mm. bu fekkee dañuy atté ñu téy nit ñi ray 90% de la population du Sénégal. nan leen ray nañu tas rew mi ku nekk jël walam ku ne dem yoon. <laughs> wa mais Cheikh. yaa minimiser tamit même bu ñuy atté ñuy ray nit ñi ñepp di dégg ah bu baax ni ma la bu baax ni ma la. même bu fekkee ne bu ñu attee à ce point dañuy jël ay bal tiire nit ñi ñëpp dee ñu suul leen ñi si des continuer di dund ci république ak ci état de droit. jërë ngeen jëf mbokki internet yi ginnaaw kàddu ya Cheikh Yérim Seck yooyu nag ñoo ko bokk dégloondoo dégg ngeen kàddu yi nga xam ne nii moom la yëkkati jëmale ko ci diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye même bu fekkee ne sax dañ leen di àtte ñenn ci sénégalais yi di dee dañ leen a war a àtte bu fekkee ne réew mi réew mu jaaru yoon la kàddu yooyu nag la daal di yëkkati mel na ni nag mook Ousmane Sonko am na problème bi xam ne ni moom la ñu war a lijjanti te kii di Cheikh Yérim Seck waxu ko ci kaw.